ñu inauguré suñu usine ndox bi nga xam ni moom lañu teg fii ci Saate ci Touba. organisation bi mu ngi tudd solidarité internationale pour le développement du Sénégal waaw mu mu muy liggéey boo xam bi rek euh, gëm-gëm moo ko lal waaw ñu woo sénégalais yëpp ci liggéey bi ci suñu mu tàmbale suñu mbokk yu baax yi ci Touba Mbacké nga xam ni loo fi tàmbali rek yàlla macha allah barkeel ko di dëkk bu tedd boo xam bi ki nga xam ne mu ngi jiite liggéey bi ci waa jigéen ñi muy soxna Jatu Mbàkke Alaaji Baara ñu di ko sant bu baax nag ak mbokkam yu baax yi nga xam ne moom la ko àndal ñu ngi ni teew ngeen di leen gis li tax liy jóg daal mooy pour ñu ñu mënal suñu bopp rek jéem a demal suñu bopp jéem a amal suñu bopp te xam ne am réew doomu réew mi moo koy soppi doomu réew mi moo koy defar. xam nga am réew moom euh, taal bu të tàkk lay doon ku nekk ak na nga xam ne moom nga indee sa matt rek pour taal bi jéem a tàkk. xëy na ñoom ku ci nekk fa nga toll rek ci àdduna àdduna yëpp ay jaar ay yoon la ak i bunt ak i pexe waaw pexe mi nga xam ne jàpp nañ ni moo mën a lijjanti senegal nag mooy euh, euh, ku nekk def dara ñu def ni tubaab yi ak chinois yi ak yeneen xeet yi nga xam ne ñi ngi nekk fii di tibbe ndeyjoor ak càmmoñ gis ci seen bopp kon nag ñun war nañoo mën a ku nekk def ab dërëm wala tànk wala indi sa duubal ñu boole ko dajale def li nga xam ne rek moom la fi tubaab bi doon def bu ko defee dinañ ci gis suñu bopp réew mi tam dina ci gis suñu bopp te du am ay naxaate nag du am leneen lu ko nuru sama xol tooy na ndax États-Unis d'Amérique laa nekk am yàgg fa am lu ma fa jàng ci réew mu mag boo xam ne bii ñoom dañoo mënal seen bopp te booloo rek moo leen ko may ma jàng fa loolu nag dëkk yéene ko sama réew doon wax ci groupe whatsapp laa ko ubbee ñu di ma dégg sama kàddu am gëm te gisuñu ma ñii nga gis ñëpp bi may xamee ne ñi ngi sos affaire bi kenn mësuma ca teg bët dañoo am seen gëm-gëm rek ànd ak ngor nag ànd ak euh, euh, jom ju mat sëkk nag dikk rek fab seen alal teg ko boobu sax gisuñu ma bi ma ñëwee itam ñu am dal am mbégte xam ne li ma leen waxoon toxuwul mooy rek jëf jël ni ko maam Cheikh Ibra Fall doon waxee ñàq jariñu waaw ci loolu daal la ñu tegu ba ñun ñëpp ñu àndandoo rek nañ ko doon waxee Amérique bi ma dikkee Sénégal dara toxuwu ci ñu ànd ak man rek daal di dikk soppi Sénégal ba moo tax ngeen gis lii ngeen gis muy euh, fii ñu inauguré sànq mu ina usine ndox bi ngeen xam ne euh, yéen a ci teg seen bët ak yeneen yi nga xam ne ma nga ca kanam yeneen investissement yoo xam ne réussir nañ ko magasin bi comme Auchan ci lañ ko jëmale taxaw na ak usine café taxaw na ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci kanam donc rek liggéey rek moo wóor daal ku nekk mën nga ci gis sa bopp lii mooy solution pour Sénégal keneen ku doon wax lu dul lii ah euh, du ma ne ay nax la de waaye du yomba gis du yomba teg sa loxo lii nag moom du ay wax lii lu ngeen teg seen loxo la te seede ngeen ko fi mu nekk waaw am réew doomu réew mi moo koy defar lii ma mën a résoudre problème chômage bi ci Sénégal du ab tubaabay ñëw ñuy yaakaar xaalisam ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa nit ki bu la mënalee sañal la ku la abal ay bët fu ko neex ngay xool saw ñaq rek nga mën a demee li Sëriñ Tuubaa wax rek lu tax may fab sama mbir di ko jox ñoo xam ni lott nañ ci faj seen mbiri bopp sama mbir yàlla laa koy jox doyloo sama ñaq wi loolu mooy sama message ndax solution bi yëpp fii lay résoudre ci Touba gi waaw intellectuel yëpp a lajj te loolu mooy wax ji wax ma dëpp indépendance lan lañ fi taxawal intellectuel yi dara taxawaluñu ko lii mooy solution bi jëf jël ñàq jariñu ñu dajale sañoo ñàq def ko te mu tegu ci dëgg nag ak njub loolu rek mooy yoon wi lu dul lool rek mooy nañu ko waaw li président Kennedy waxoon moom laay moom laa leen di fàttali président John Fitzgerald Kennedy président Amérique daf ne ask not what your country can do for you ask what you can do for your country ne la itteel ngay xalaat lan ngay jëriñ sa réew wala waaye bul dëkk rek di jëriñoo sa réew réew mi lu nekk ngi fi te dañ ko yàgg jariñoo mais mais ñu réew mi loolu du yoon c'est pas normal ay naxaate moo fi bari ay tappale moo fi bari ay dóor marte ay nax nit ñi nax jigéen ñi nax xale yi nax mag ñi nax ndaw loolu nag c'est pas normal yooyu dafa war a jeex la solution mooy solidarité international pour le développement du Sénégal c'est la seule solution pour le Sénégal la meilleure solution la meilleure option et la meilleure alternative pour le Sénégal il n'y a pas d'autre alternative que celle-là euh, bi nga xamee ne màggal Serigne Touba gi mu ngi jub yàlla dajale naag daaw dañ doon jënd ndox ren nag yàlla sunu borom mi dara tëwut ak barkeb Serigne Touba am nañ sunu usine bopp sunu ndoxum bopp ñaan yàlla fàkke màggal gi jàmm ak salaam ba képp ku ci bokk jaay ci gis sa bopp solide am ci bénéfice ñu bokkaat ak moom bénéfice bi kon loolu dañ koy sant yàlla bu wér machine u café moom yàgg na fi ñoo ngi ci doon liggéey bi yàgg ba tey ñoo ngi koy sant yàlla magasin bi soxna màggat Mbàkke ko yow mu ngi fii ci marché déeg ba moom daal moom liggéey bi moom ñoo ngi sant yàlla bu wér sant Ahmadou Bamba Thiam nag moom wax dëgg yàlla jëfam ji dafa rëy ndax lii kat képp ku ne mos naa ko gis mos am man de wax dëgg yàlla am naa yu tegal mosuma ko dégg fenn mosuma ko gis fenn ci moom laa ko mos a dégg ci laa ko mos a gisee te ñun bi bi bi ñuy dugg ci yëf yi ak bi ñuy jënd suñu carte bi ñu dagg suñu action gisee gu ñoom moom waaye nag lan wax ci moom moom lañ gis ci moom ba léegi sii waaw di taalibe Serigne tubaa nag bu dara raxut rafetum xol lool ndax nit boo déggee waxam rek te la mu waxoon démb lay wax tey te ngay daal di xam ne dëgg la ndax lu dul dëgg du yàgg te dégg na ak kàddoom lu yàgg te dégg ko teguñu ko bët kon nag lu dul dëgg lu ne du yàgg loolu moom wolof wax na ko ba tey biñ ko gisee ak biñ ko gisut moom tey lan yemale képp. waaw sunu gëm-gëm ba nag duñ ko duñ ko duñ ci dellu ginnaaw benn yoon ñoo ngi sant nag madame Thiam soxnaam si nga xam ne moom itam dafa topp ci ginnaawam rek di ko jàppale wax dëgg yàlla ndax daaw bi nga xamee ne màggal gi jub na moom ñawagul ma nga Amérique mënuñoo génn xaalis ci compte bi moo ñu jox moo financé xaalisam ñu liggéey ci ca màggal ga màggal gi lañ tàmbali liggéey bi daaw màggal Serigne Touba gi 18 safar bi ñu noppeet ñu doog a tàmbali continuer liggéey boobaak léegi itam dematuñu Amérique bëggatuñ fi fenn ndax bëgg liggéey bi rek moo leen moo leen ñor wax dëgg yàlla daaw bare ñu ngi fi sëriñ tubaa yi nekk ci diwaanu bawal yépp day sëriñ tubaa li ñu fi bàyyee moo jaamu yàlla ak liggéey kon bu kon gisee foo xam ne mën nañ faa liggéey boole ko sunu jaamu yàlla te yàqu ko dañuy sant yàlla sant Ahmadou Bamba Thiam ndax lii jaamu yàlla liggéey rek la sunu sunu julli gi dara weesuwu ci te lii buñu demee ba ca kanam danañ ci am li ñu bëgg suñuy sët di ko ci am suñuy sët di ko ci am te yàlla nañ fekke lépp si tal ko ci barke sëriñ tubaa ñoo ngi woo ñëpp nag képp koo xam ne daal bëgg ngaa liggéey doo ca sonn bay ba nga ñëw fii loo ci dugal lu ne daal moom bay ba nga xam ne moog la nga denc sa armaal ba yem te lii moo gën a wóor sax ndax day jur te la nga denc sa armaal bu jur dara kon nag lii moo gën a wóor ñu daal ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di sant bokk yëpp nag képp koo xam ne daal bokk nga ci ma ñoo ngi lay ñaanal ci jëmmi Serigne Touba ak Cheikh Modou Fadal mi yëkkati woon màggal gi dinañ ko indi Touba ñu fekke màggal gi te tal ko te liggéey ci am ci jaamu ci yàlla teral gani Serigne Touba yi jaay sunu jaay mi mu jarte barkeel. woote yomb na waaye ñu wuy si la yombut te Cheikh Amadou Bamba daa woote nekk fu sori ñu ñëw wuy si ko ànd ak moom ba egg si fii tey yaakaar naa ñëpp teg nañ loxo ci li nga xam ne moom lañ defar tey ndax ñu bari xalaatuñ ko woon ñu nag amoon nañ gëm-gëm ndax xam naa ne dara du ci doon asaar lépp dina am ci jàmm salaam waaye yàlla suturaal nañu ba tey ji lépp lu ñu bëggoon am nañ ko tey am nañ usine ndox am nañ usine kafe am nañuy magasin ceeba nga fa diwlin nga fa lépp nga fa soxna màggat mii moo ko seere ñun ñi nga xam ne tam amuñu point ñoo ngay dem di jëli di yóbbu ca sunuy kër di jaay di dem verser ji bu ñu versé dem yóbbu jëlaat yóbbu ñëpp def dolliwaat seen dolliwaat ci seen loxo gën a góor góorgóorluwaat na xam ne suñu yëfi bopp la ndax mën nañoo dem ba am suñ métier lu bopp la ñuy dem lebi ji ca banque ñu koy leb fii te duñ ci teg benn intérêt ndax ci lislaam la ñuy liggéey kon banque islamique jàpp naa ne bu xaas bi continuer ñëpp dolli seen action ba magasin yëpp taxaw boobaa xaas ne fi xujja joob bu soxlaa téeméeri junni dañ ko koy lewat mu dem liggéey soxna jotu bu amet bu soxlaa téeméeri junni da koy jël ñun daal li ñuy lancé mooy képp ku dëkk diggante Touba ak Mbacké ak nga ñëw jël sa loxo dugal ko ci mbir mi te xam ne mbir mi suñu mbirum bopp la am réew kenn mënu koo suqali ku réew ma ñun nag fii ñu dëkk ci Touba yaakaar sëriñ Touba di doomi Touba di doomi dëkk bi ñun ñoo ngi woo suñu mbokk yëpp képp ku seetaan vidéo bi ñoo ngi lay ñaan nga ñëw bokk si ci liggéey bi ñu ànd koog yow am nañ ndox ci màggal gi am nañ boisson ci màggal gi am nañ pomme am nañ soble am nañ dëwlin lépp lu ñuy jëfandikoo ci màggal gi am nañ ceeb am nañ ko numéro yi danañ ko joxe mu daw kenn ku ci lu ci waaye bëgg rek boo ko commandé danañ la ko indi incha allahu rabi. macha allah Bamba Thiam lii nga xam ne def na ko ci diir bi man dama yàgg ci entrepreneuriat te gisuma nit yi di ko def ci diir boobu parce que projet yi mu taxawal yëpp macha allah benn bu nekk rek bu jëloon at kenn du ko sikk. benn bu nekk bu jëloon at kenn du ko sikk lii ñu am nag nekk lu foor loo xam ne daf maa yëngal oto yi ma woo bi ma ne quatre heures et demi benn place dama ne ko ñëwal nelawuma ndax bëgg a ñëw gisanteeg yéen saafonteeg yéen sargal leen jigéen ñi jàmbaar yi sargal suñu président mii nga xam ne lii mu fi taxawal àndandoo kook yéen àndandoo kook nawleem yi ñépp jàppale ko ñuy ñaan yàlla yal na sax li nga xam na nag moo koy doxal mooy ñun ñi ñun ñoo ko moom ñun ñoo nekk ay actionnaire fi mu nekk kenn ku nekk actionnaire dañ ko daan dégg tey nag ñoo ko nekk actionnaire nag mooy lan mooy ñoo boole suñuy doole pour moom benn business business boobu bu ñu yàlla suturaalee ba mu baax ñuy gagné dividende dividende nag ku ko dégg di nga xam ne yow fu sa doole dem sa dërëm fa dem nekk fa sab soldaar ñu war a bon sunu dërëm yooyu bari fa ku bari ay employé rek sa entreprise daal di mag nga bari bénéfice daal di noppalu lii commencement bi rek la bu ñu defoon dividende yi lu ndaw lay doon waaye buñ ci amee ci usines yi ñaar ñetti ñeent am ci boutique yi fukk point café yi ñu am ci juróom benn juróom ñaar ak yeneen projet yi nga xam ne moo nekk sunu kanam lu tax sax ñun duñu ko def suñu banque pourquoi man may jël samay million di ko def ci beneen banque te Bamba ne fi pourquoi nga koy def pour pourquoi keneen di ko def ñun ñëpp nañu bokk am conscience ne ñun actuellement ay patron lañu patron yi nag yu ñu ji la mu war a jeb bi <laughs> ndax buñ nee patron te yoraguloo xaalis dañ naan wa kii doful dofu ma de ay patron lañu ay actionnaire lañu lii ngeen di dégg ay assemblée générale des actionnaires mais tey ñun ñooy actionnaires yi kenn ku ci nekk waratuloo bëgg dara ndax nit bu amee xaalisam war na ko saam ñetti saam benn saam ba mu dugal ko fii solide yor ñaar yi di ci wëlbati loolu daal laay ñaan ñu def ko ñu def nag suñu benn appel de fonds bu gaaw bu urgent macha allah ndax bu ñu yàlla dimbalee màggal gi ñuy dëkkmal ñu mën a indi suñuy conteneur boisson mën a indi suñuy tente mën a indi suñu glacière yu am doole mën a def un plus par rapport ak lii nga xam ne moom la ñu nekke woon ba léegi ma kontaan lool tey ci gis leen ndax man temps en temps laay dugg bari naa ay activité tey yàlla ma suturaal man mii xam naa am naa lu ma xam <laughs> ndax yàlla ma dimbali rek ma ne nii rek gisaat asam kii actionnaire yi ubbiwaat ma ne waaw ma déglu tuuti dégg soxna jetu joxe information bi ma ne ah ki jàmm suñu usine ba ñu ngi koy inauguré du ma toog damay dem Touba.